année mel na am taag bi fo. fétiche bi doo ko boo pour la nee na fétiche du dara loolu la wax. la xaar yi kooku yàlla moom ku jinne ku jinne du def dara. dafay toppale day soog kii xamul dara. c'est pas un féticheur lii gàcce la defet la ci Nigéria. non mais xaar ba mu daane daaneelagul. mais rek di yàlla pour tout dem soleil levant zoé ji. maada soko bolam maada soko bolam menia maada soko bolam menia maada soko bolam menia maada soko bolam menia Mara soko bwana mmlia. Wallahi wallahi. Déglu rek. seetaana rek. sëñ bi dama nga toog bii sa battaalu cigarette yow seetaana rek. yow bu ngeen de bu ngeen de seetaana rek. Eh, bul yàq bul yàq bul yàq. su ma mbokk mu jëre une heure de da ko gis boobu deful dara di nga xam. mais moom lu mu war a taal ma taal la yow yow